رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعد للأم طر رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان Yassine mon le directeur de l'autorité du WAF. Nous sommes ici, Wande, ce que nous faisons, c'est qu'il nous parce que quand on parle du Japon, il y a deux tonnes de chèp. Il y a 21 litres de douline, parce que 150 bidons de douline, il y a 4 litres, 600 litres de douline. Avec sucre. yooyu yëpp man dama jàpp ne loolu ñëw joxe ko dem wante bi ñu ñëwee directeur général ak docteur Aaj li ñu xamal ci waaf suñu xel masu koo njort donte man mas naa ci am ji ay jéego ak ñoom docteur Adi euh, Adiatou Laye ñoom Ablaye Sylla euh, Ablaye Diène bi wante tey jii ni mu ñu ko waxee dañu jàpp ni lii lu war a siiw ci réew mi la ndax buñ ko jàppee ni mu war a demee. njariñu ñëpp la dama ci joxe sax benn firnde ndax war nañ sànq ne yalwaan yu nga xam ne moom lañuy dajale at mu nekk di ko jox taalibe bi dana nekk cinq milliards mais ma jàpp ne man li may saraxe ajjuma ak ndey jàmbur rek keneen ak keneen du ñàkk bu ñu ko dajaloon ci pénc mi def ko ci fond dina jur lu ëpp lu ñuy saraxe loolu dafa bokk lu ñu jàngal du ñàkk am na tool yoo xam ne toolu lébu yi lañu du ñàkk mënoon a nekk waf ak yu deme neneen neneen kon yooyu yëpp dañ ko leen koy gërëm bu baax a baax di leen wax ne ñoom ay cadre lañu ñun suñu xel daana bi nga xam ne président laal la République dénk leen bii cër te réew mi tabax yi baax na peinture yi baax na wante fexe ba ku xiif lekk ku mar naan ku feebar faju aha bu loolu matee li ci des yëpp door a ñëw Je salue tout le monde et en commençant par le grand sérigne de Dakar, M. Abdoulaye Mahtar Diop, qui n'a ménagé aucun effort pour euh, la réalisation, pour l'organisation de cette manifestation. Donc la haute autorité du WACF euh, était présente ici pour la remise de 150 kits de dons alimentaires à travers son partenaire Direct Aid qui nous accompagne régulièrement dans nos actions. Donc ces 150 kits sont destinés à des personnes défavorisées, plus précisément habitant dans le département de Dakar. Et donc nous avons pensé que le premier relais avec lequel nous travaillons notamment pour un projet immobilier, ce serait la communauté Lebou à travers son responsable premier qui est le Grand Serigne de Dakar. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, nous avons un projet pilote au niveau de la haute autorité du WACF qui consiste à la construction d'un immeuble de 16 étages dont les revenus locatifs qui seront générés sont destinés au fonctionnement des daras modernes. Il y en a 64 qui sont construites euh, par euh, le ministère de l'Éducation nationale à travers toujours la Banque islamique de développement. Donc ce projet-là est un projet pilote au niveau de la haute autorité du WACF qui doit derrière développer d'autres projets. Nous avons commencé euh, le WACF agricole dans le département de Matam et nous comptons réaliser d'autres projets. Le Grand Sérigne de Dakar a parlé euh, d'un partenariat qui pourrait être noué pour développer d'autres WAKF avec notamment euh, la Grande Mosquée de Dakar, ce qui est une perspective très intéressante, pour la haute autorité du WAKF Et nous allons y travailler et nous atteler euh, dans cette perspective-là. Voilà, donc grosso modo, pour ne pas monopoliser la parole, c'était

don yi nag 150 kit la 150 kit yoo xamante ne am na ay saaku ceeb am dëwlin am suukar am meew ki ñu ci jàppale nag mooy suñu partenaire bi ñuy wax Direct Aid mi nga xam ne mi ngi Sénégal depuis ay ati ati at yàggoon commencé ba ci Ziguinchor ba tey jii ñi ngi ci dëkk yëpp ci Sénégal am nañ fi sax ay orphelinat ak école ñoom ñoo ñu gunge pour ñu mën a joxe tey 150 kit. ñi ngi ciy gërëm nag grand sëriñ mi nga xamante ne moo tax ba tey jii ñu mën a penc yi fi nekk yëpp fii ci dakar ngir jagleel leen ko ñu mën ko jagleel ñi nga xamante ñoo di néew ji joole ji dëkk dakar dafa am solo parce que li tax ñu tàmbalee ci communauté euh, euh, lébu gi moo di ne dafa am benn projet boo xamante ne mooy projet pilote mooy projet bi nga xam ne moom bi njëkk bi nga xam autorité wakk mu ngi fi def projet bi benn immeuble bu ñu war a tabax ca centre ville fa nga xamante ne école Amadou Assane Ndoye foofu la nekkoon te nga xam ne tey jii école école boobu noonu élèves yi génn nañ fa. président de la république Macky Sall ci vision mi nga xamante ne depuis 2015 la fexe ba ñu voté loi WACF boole ci mu institué mu def institutionnalisation bi à travers la haute autorité du WACF moo ñu jagleel site boobu noonu. daf ñu ko jagleel pour ñu def fa immeuble bi ma leen di wax mi nga xamante ne immeuble 16 étage la boo xamante ne financement bi banque islamique de développement joxe na ko ba pare donc tàmbali liggéey bi rek moo ci des immeuble boobu su pare soo loué location bi li muy jëriñ mooy daara moderne yi nga xamante ne am na yoo xamante ne tabax nañ leen ba pare foofu la jëm ngir seen fonctionnement maanaam nekkin ba colinu élèves yi ak seen dundin loolooy njëriñ bi waaye tey jii nag ci waxtaan bi ñu amoon fii nii nga xam ne remise de don la dañ ci profité vulgariser maanaam fexe ba nit ñi gën a xam lan mooy waqf ak lan mooy njëriñam ci kaw loolu mu am lu ci juddu kii di Serigne euh, grand Serigne de Dakar Ablaye Makhtar jóob wax yéeneem bi nga xamante ne am na ko ñu war a mën a liggéey ak grande mosquée de Dakar mi nga xamante ne foofu noonu amna ay daara yu fa nekk kon tey jii daf ñuy gën a conforté parce que ñun suñu liggéey dafa tàmbali woon ci daara moderne yi waaye yeneen daara yi nekk sénégal yëpp dañ cee war jëriñu boo waree tàmbale fenn nag mu di dakaru dafa am solo itam Boy jàppale nga commencé tamit jàppale ci daara yi nga xamante ne foofu lañ nekk donc tey jii looloo ñu dajale woon fii te ñu koy delloo di ko gërëm di gërëm itam suñu partenaire bi di direct aide Très content d'être là aujourd'hui euh, pour assister à cette cérémonie de distribution de 150 kits alimentaires destinés aux populations de Dakar Plateau. Nous remercions, vivement le grand sérine de Dakar, euh, M. Abdoulaye Mouhtar Diop, pour l'accueil chaleureux et pour la participation avec nous dans cette cérémonie. Nos remerciements également vont à notre partenaire, la Haute Autorité du que nous sommes en train de travailler depuis un certain moment euh, dans beaucoup de domaines et surtout dans les domaines euh, sociaux. Donc euh, cette activité rappeler que, se déroule dans neuf régions du Sénégal, euh, qui sont la Casamance naturelle, la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Matam, la région de Saint-Louis et la région de, de, Et nous souhaitons euh, un bon ramadan pour tous les Sénégalais et merci beaucoup. رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان